c'est de l'ambiance et rien que de l'ambiance. Je salue Wassenigo et tous les internautes. Je vous salue. Et puis, c'est ça le grand bal. Youssou Ndour tey nekk premier artiste bu joué fii tey lan ngay wax spectacle bi ak ñi ñu ñëw wuyu si ko. Euh, c'est c'est bien euh, waa Sénégal xam ni que lii. dafa jaadu ñu am yeneen spectacle yu mel nii am sur le plan international da ko indi fii li mel ne Dakar Arena ak Diamniadio boo xoolee salle bi ni mu mel décor bi tout ce qui est lumière nga xam ni kon donc fii war na fi mu ne def ay spectacle extraordinaire donc on remercie Youssou Ndour nag moo ubbi bunt bi donc dafa spectacle bu mel ni Bercy gis ngeen lu fi xew regardez le monde personne ici donc li ma lay wax ni liggéey rek en tout cas on félicite Youssou et féliciter vraiment les Sénégalais aussi. nga yaakaar ne ubbil na porte yeneen artistes yi pour ñu ñeme fii ñëw jouer. non fii moom fii fii fii fii Dakar Arena à part Youssou Ndour moom rek moo mën a def lii. ma benn artiste laa xamante ni à part Youssou Ndour moo mën a remplir lii mooy Wally Balago Seck. métti parce que ce garçon on je sais que fu mu nekk na ko fa fekk il a fait Bercy il a fait sur des grandes salles alors donc pourquoi pas Wally Balago Seck bi Arena j'ai confiance à lui. C'est pas un défi. Je, euh, moi, je lance pas des défis à, à, à quiconque. Euh, je sais qu'il est capable de le faire parce que c'est le chanteur du peuple. À part Walisek, fille.